Donc au moins, on peut dire que le président euh, euh le président du Sénégal, a été loyal envers son homologue euh, français euh, Emmanuel Macron. C'est ce qu'on peut, on va dire, c'est ce qu'on peut comprendre, retenir. Oui, oui. Il, le sera toujours. Mhm. C'est un homme d'une grande loyauté. Mm -hmm. croyez Et d'une grande fidélité. D'accord. D'accord. En tout cas, un grand merci. Euh, Monsieur France Afrique, c'est ce que euh, vos adversaires <laughs> voilà donc euh, disent euh, par rapport à vous. Mais ah, vous, rigolez donc euh, voilà ça glisse on va dire. je suis un, homme âgé maintenant mhm. et cela je traîne ça depuis des années. Mhm. Mais j'ai une chose à vous dire. Oui. À chacun de mes passages à Dakar, mhm. au su et au vu de tout le monde, mm -hmm. je déjeune ou dîne ou vois des proches d'entre les proches de Monsieur Ousmane Sonko. Ah. Oui, madame. Oui, madame. J'espère que vos auditeurs m'auront entendu. Et d'ailleurs, je pars très bientôt à Dakar. Mmh. Rendez-vous a déjà été pris avec un homme de son parti, mmh. un ami, mmh. un homme du ministère des Finances du Budget, mmh. que j'apprécie, qui est d'une grande élégance morale, mmh. d'une grande rectitude. Il a ses idées et moi j'ai les miennes. Mm-hmm. Ce que j'aime par-dessus tout, mm-hmm. c'est qu'il ne m'a jamais appelé Monsieur Bourgie. Il m'appelle comment, Madame, d'après vous Cet homme est narque et tout. Le, le grand truc. Mm-hmm. Il m'appelle Tonton Bourgie. D'accord. C'est magnifique pour moi. Et c'est ça en fait, en fait euh, le Sénégal, c'est ce qu'on a toujours euh, euh, connu. On peut être des adversaires, mais pas des ennemis. Mais s'il vous plaît, je m'adresse à tous les Sénégalais mhm. de tous horizons politiques. Mhm. Ne gâchez pas le legs de nos anciens. Mhm. Arrêtez de brûler, arrêtez de détruire, arrêtez de piller, arrêtez les invectives, arrêtez les insultes. Bon Dieu, nous sommes tous les héritiers mm. de, de, de nos anciens, de Blaise Diagne, de Galandou Diouf, de mm. Senghor, de Lamine Gay. Mm. Il arrêter. Franchement, nous sommes. Ah, il y a assez d'intelligence dans tous les côtés pour que l'on puisse s'entendre. Et qu'il y ait des joutes politiques, qu'il y ait un pouvoir, qu'il y ait des oppositions, c'est tout à fait normal. Et préservons le berceau de la démocratie et le Sénégal. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, Monsieur Robert Bourgi. Ça a été un honneur, un plaisir de vous avoir dans ce live-là. Et je vous l'ai déjà dit euh, lors de notre première discussion, euh, c'est un honneur, euh, de vous connaître et d'échanger avec vous. J'espère que je vous connaîtrai charnellement un jour. <laughs> on, va se rencontrer, Inch'Allah, à Paris. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. voilà donc sama gars yi c'était euh, monsieur euh, Robert Bourgi euh, interview bi je sais pas naka ngeen ko gisee mais man j'en suis ravie et vraiment kontaan naa ci invité ci ci invité ko on a appris beaucoup de choses ma wax leen ko rek ci tënk pour ñi nga xam ne dañu am habitude di seetaan suñu live bi ñu di ko def ci wolof donc li mu expliqué rek moom mooy décision président Macky Sall bañ a présenté wu 2024 jël na ko bu yàgg kenn subirul benn pression mu ne ku xam président Macky Sall ak caractère am euh, euh, ak personnalité am benn euh, pression mënul dox ci ci ci moom kenn mënu ko teg pression pression du ça marche pas ak président Macky Sall ñëpp gis nañ ne nit ñu bokk ak moom camp waa benn bokk yaakaar waa APR ñu bari bëggoon nañu mu bokk fësaloon nañ ko waaye jël na décision donc ñi nga xamante ne nii bokk nañ ci opposition radicale rawatina Ousou Bébé kàddu Ousmane Sonko lakkal ñu sonal ñu witt witt witt witt ak manipulation Ousmane Sonko na Sénégalais yëpp xam ne Ousmane Sonko ak ña nga àndal ak say sa coquille vide yeewi askan wi bu n'avez amu leen benn pression bu ngeen teg président Macky Sall seen élément de langage du jal yéen ñii wax après que ni ak ak ak ñoom maman Aïda Aïda Mbodj wax na ko que ni euh, euh, ñoom. ñoom ñoo tax ba président dellu ginnaaw euh, parce que bu dellu woon ginnaaw lambay ñaaw euh, euh, Robert Bourgi ak ñu bari ñi nga xamante ne nii jege nañ président Macky Sall nee nañu c'est faux il n'a subi aucune aucune pression te it jëloon na décision bu yàgg donc moom ci boppam mu ne moom ba mu demee palais gisante ak président Macky Sall moom monsieur Robert Bourgi si le ko président jo euh, wax ko ni ko du présenté waat c'était le 14 juin première dame waa waa Pastef ba tey ñoom waa kër yaa ma di tax génne benn benn vidéo euh, euh, première dame parce que xam ngeen ne jour bi président waree wax ak askan bi première dame dafa demoon ci siège APR nekk fa ak militants ne ko muy dugg biir otoom euh, euh, euh, avant la fin de l'allocution du président mu mel ni dafa nekk sous le choc mu mel ni dafa mer monsieur Bourgi nee na loolu amut donc la famille du président a commencé par la première dame nga xamante ne xam nañ rôle bi mu joué ci on va dire le parcours de son mari homme politique ba mu nekkee ministre ba ni muy nekk président ñëpp xam nañ rôle bi mu joué feddiluwaat na ko confirmé na ko ne ne première dame euh, euh, nekkoon na dans la confidence donc la famille présidentielle euh, leneen li li mu wax également moom mooy lu jëm ci mbirum APR man mi ko commencé par man depuis longtemps damay ragal ni APR bi parce que dafa bëri ay clan bëri ay problème ñëpp xam nañ ko Anita Diop doo ma weddi baax yaay ñoom ba jaxatee du ngeen ma weddi donc est-ce que du duñu dem ci implosion parti bi tas nee na loolu du am benn Bokk Yaakaar coalition bi du tas nee na Macky Sall il tient encore les rênes te ñépp ñi nga xamante responsable yi bëgg a jàdd ko ak ñoom seen dina leen indi gindiwaat donc ba jaxate liir naa ko démb mu bind ko képp koo xam ne président Macky Sall moom lay tànn ne moom mooy doon candidat wu APR ak benn Bokk Yaakaar ñëpp bu soobee yàlla di ngeen suivre donc bu loolu weesoo également Nicolas Sarkozy euh, bi euh, sorti président Macky Sall ba mu ñëwoon fii euh, ci Paris nee na ñu gisante na ak Nicolas Sarkozy waaye Nicolas Sarkozy ancien président France day faral di waxtaan ak it ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall moom it Nicolas Sarkozy président Macky Sall xamaloon na ko ni ko du sampan ndëndëm 2024. relation yi am diggante France ak également Sénégal xam ngeen ne président Macky Sall wax na ko bi passé nee na le fait que Emmanuel Macron le président français Élysée yónnee ndaw ñu dem gisanteeg principal euh, opposant di Ousmane Sonko te mu à son insu mu ne ça a été inélégant moom monsieur Bourgi ne man du ma jël ay gants comme président Macky Sall c' était inacceptable loolu jaaduwul te Emmanuel Macron président France waroo doxalee noonu ndaxte président Macky Sall daf ko ji. kóllëre ak ngor dafa gore ak moom loyal ak moom ndaxte Valérie Pécresse bëggoon na gisante ak moom mais daf ko ne du ma ko def du ma immiscé wu ci ay euh, ci ay euh, euh, dans les affaires de l'État français kon nag dafa dawal ngor dafa dawal loyauté ak président Macky président Emmanuel Macron ba mu jeex tàkk donc defe naa loolu moom moo doon le plus important li la quintessence ci interview bi ni mel encore une fois gars yi dinañ def live spécial ak également l'homme des l'État et c'est un plaisir pour moi de vous l'annoncer le président Idrissa Seck donc moom mooy chef de l'opposition bëgg bañ par force moom mooy chef de l'opposition nee na ma mati maay chef de l'opposition waaye dans six mois bëgg naa nekk sa président de la république kon nag gars yi nañ ko nañu joxe donc rendez-vous dimanche prochain suñu live spécial ak euh, monsieur Idrissa Seck l'ancien premier ministre du Sénégal ki nga xam ne moom moo ñëw nekk deuxième euh, euh, ci élection bi passé de 2019 am un parcours exceptionnel nekk un homme de paix nekk un homme d'État ndaxte ba ba Sénégal ñu jub ci ay ay ay moments ñu nekk ci ay moments yu difficile jamonoy Covid moo toog neexal la ka naqari mu ne damay dem ànd ak président Macky Sall liggéey ak moom dans l' intérêt du pays dans l' intérêt du Sénégal mu dégg ci lu nekk nag ndax Ousmane Sonko ak ña mu àndal may ñu ko jàmm lu ne dégg na ko ci waaye nag l'histoire lui a donné raison kon nag kooku ak fierté moom lay am comme invité incha allah dimanche prochain euh, nee naa leen mbirum complot d'état bi dinañ ci waxtaan incha allah 15 minutes vingt minutes avant may jël sama invité dimanche prochain ndaxte juste ci misaal xam ngeen ne non Ousmane Sonko xam na ne il est cuit ñi mu àndal Anita Diop li mu wax mooy dëgg ñi mu àndal xam nañ ne le gars il est te ñoom it seen loxo setu ci mbir mi. xam nañ ne muy ñoom na Nafi Ngom na fi Ngom Keita bugguma sax di wax lu bari ci moom parce que jigéen la parce que mère de famille la mais tey information yu bari yoo xam ne day Sonko daf koy am dafa am fu mu doon jaar ba yeg ci Ousmane Sonko kon nag gars yi mun naa ne Dieu aime le Sénégal. yàlla daf ñu suturaal yàlla dafa suturaal président Macky Sall nañu def attention sur ces panafricanistes ces imposteurs là yu mel ni comme Ousmane Sonko su ma nee c'est panafricaniste waxuma Kémi Séba Kémi Séba c'est un frère pour moi quelqu'un que je respecte et qui me respecte également parce qu'on s'est vu à Paris mais ñi nga xam ne nii ay imposteurs lañu ay opportunistes lañu dañuy jaar ci ñun suñu bëgg-bëgg moom mooy ñun on est des panafricanistes ñun suñu génération et nos frères nous voulons une Afrique libre mais pas à n'importe quel prix pas à n'importe quel prix chers frères faisons attention sur ces lobbies là et ces imposteurs là yu mel ni comme Ousmane Sonko qui se permet Ousmane Sonko di di di di di titiller ay ñoom ay ay ñoom ay ñoom euh, euh, maanaam l'ancien président burkinabé ay ñoom Thomas Sankara wa ay ñoom monsieur Amadou Dia alors que il n'est pas du tout de la même trempe faisons très attention sama gars yi jàmm jàmm lu jëm na ci médias occidentaux yi ama ci am ñoo xamante ne dañu sëkk dama sëkk ak ñoom coloré euh, des des confrères yoo xam ne depuis ma nekk reporter Walfadjri je voulais pas entrer en contact ak ñoom parce que combat bi ma nekk la te je sais que ni ñu ngi seetaan te ils comprennent pas mais dafa jot balaa may préparer émission bi bii di ñëw position média français yi the record dina am ñu ma ci woo également jàmm ak jàmm sama gars yi kontaan naa ci yéen merci beaucoup à monsieur Robert Bourgi merci à, à, à euh, monsieur Seck également d'avoir été si disponible si élégant et si galant avec moi inchallah dimanche prochain dinaa def face ak Idrissa Seck merci à Babacar Mar merci à Mané merci à Traoré et toute l'équipe euh, digitale de euh, Rewmi di def aussi un coucou yéen ñëpp ndaxte homme politique yu bëri dinañ fi jaar inchallah waa PDS ñoom na fi ñoom na fi jàllo waa Khalifa Sy également euh, mun naa ne de manière général ñoom Thierno Alassane Sall et cetera Sénégal benn bopp la kenn nu koo xar ñaar mun nañ nekk ay adversaire mais nekkuñu ay ennemis bu soobee yàlla tous sauf Sonko man loolu laa gëm ku ñëw baax na mais tous tout sauf Sonko tout sauf Sonko. jàmm ak sama gars yi.